teewu na ci jotaay bi teewaaleel magam Serigne Abdou Mbacke moom Baye Cheikh Khady ànd ak Serigne Dal ñu ngi koy dalal bu baax. ci jamono jooju ci la El Hadj Malick Ndiaye di porte parole Pastef teewee ci jotaay bi moom itam. waaw ñu dalal ko bu baax a baax as Malick ngi noonu. wéyal nag li nga xam ne mooy programme bi ci kaddu yi nga xam ne moom la kilifa yi war a jël jox kaddu gi imam Mansour Sambu. imam Mansour Samb mooy wax ci turu Ittihad bi ci ñetti minutes incha allah. d'accord jërëjëf imam Alioune Badara Ndaw nee na seen maire Serigne Mboup moo leen jox ñaari kaar bi muy ñëw bi muy lim délégation bi ak ci wax ji moo tax mu fàtte ko ñu jaajëfal bu baax Serigne Mboup waaye di dalal itam suñu xarit Cheikh Bara Ndiaye borom def gis Cheikh Bara Ndiaye ngok ñu dalal ko bu baax a baax ci jotaay bi moom itam di engagement am di wax wax ju am solo ci penc bi ñu ngi koy dalal ci jotaay bi ñu jox imam Mansour Samb mu yëkkati kàddoom bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah ana waa ahlul quran alquran moo ne innahum kaanu qawman mujrimin moo ne ñooy ay criminel nañu kon président de la république mënootoo ñëw ñu nekk ay criminel fii ci mim réew nag di réewum alquran loolu du fi neexle duñ fi naanem ñeex ci turu président Moustapha Lo ci turu président Moustapha Ahmadou Wane Cheikh Adama Seck 46 département yi waa daara alquran yëpp waa rabitatul madaris alquraniya sëriñ daara yi ñëpp dañoo ànd wax ni non non non non non non non jërëjëf jërëjëf sëñ Mansour jërëjëf ci minute yi ma may maa ngi ciy bëgg lool di woo imaam Khadim Ndiaye mooy wax ci turu rabita bi ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ëmb sëriñi daara yi ak jàngalekati alquran yi sëriñ Mansour ci kàddu googu la doon wax sëriñ Khadim it ci kàddu lay wax ñu wéy dalal leen buñ noppee ñu wéy ci li nga xam ne moo ci topp góor du fi am góor du fi am jërëjëf dama doon xool ba xam sonn ngeen am déet sonn gu leen kon ñu dem ba ci kanam naaj bi tàng na aywa ñu déglu sëñ Xaadim mu joxe kàddoom bismillah inna waliyi allah hasbi allah والصلاة والسلام على رسول الله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu ci kàddu daaray alqur'ani Sénégal kàddu goo xam ne ñoo ngi koy wax ci turu sëriñ Bachiru Mbàkke moom Serigne Habibu al imam mi jiite mbooloo moom mi ak sëriñ Abdoul Aziz Touré bu Serigne Hadi Touré ca Faas ak sëriñ Makhtar Naarloo ca Kokki ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di wax ne yéen waa Sénégal suñu mag ña ku leen dekkaloon tey am nañ mbégte moo xam ne Sénégal mës ta taxaw taxawaay bu ni toll buñ bége ni moom mbokk yi Sénégal bu doon aw nag la lii nag noo ngi wax ak pencum réew mi am na ñu naan pencum ndawi réew mi waaye am réew bu amee penc moom bone ne pencum réew mi day doy ñoo ngi wax ak ñu yore àtte bi ñoo ngi yor ak seen wax ak seen kilifa gi jiite réew mi ten teg ko fa ñoo ngi leen di wax ne Sénégal bu doon aw nag la ña jiitu woon ratt nañ ko jox France ba ay përëgëm ma nga toll nu kenn xamut ak i lexam waaye kii fi nekk léegi nag xaw ma rat na joxe mbir waaye nag wi yooy na ba ami góom ndekete yoo da koo jaay ñoo ngi koy xamal ne ñiila la dénkoon nag wi nee nañ rat manees na koo muñ waaye jaay nag wi moom xàcc ko ne leen jaayatul Sénégal seen borom da koy jëlaat mbokk yi sëriñ soos yi ma wax nee nañ ñi ngi ñaanal mbooloom sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi ñi ngi ñaanal Ababacar Mbuub di ko nuyu di ko ndokkeel sëriñ Bachiru ba ma koy wax bërki dem nee na ma boobu ba léegi daara yi ñu ngi wàcc ay kaamil di ñaan kon nag ñi nga xam ne ci turu lislaam la ñuy meteex meteex yi ak layaam yi ñi ngi leen di xamal ne Sëriñ Tuubaa nee na wa man yushaarikhum huna fi izzihim yakun sharikahum gadan fi dullihim nee na gaa yi jël li ñëpp moom di ko jox ñenn nee na ku ca mos defe ne teraanga la bu ëllëgee da nga ñoom seen torox tey ca kanam borom bi tabaraka wa taala wasalaamu aleykum jërëjëf jërëjëf imam Khadim Ndiaye ci kàddu yu am solo yooyu jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax dalal député Mouhamed Lamine Diallo bokk ci ñi nga xam ne ñi porté combat bi lañ moom itam teew na sëñ Maxtaar danañ ñëw léegi ci yaatal ñu tàcc ko bu baax a baax dalal naka noonu wéyal jotaay bi nag jox kàddu keneen koo xam ne it mbokk yaa ngi koy xaar muy Guy Marius Sagna Guy Marius la ñuy jox moom ñetti minutes may leen ko mu ñëw ndax combat bi lu ngeen wax dégguma dara de dégguma leen dégguma leen lu ngeen wax